ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di gërëm Mawlana Cheikh Ibrahim Niass ndax jotaay bi jotaay Cheikh Ibrahim la te Baye Niass moo ñu waxoon ne mu ñaan yàlla alquran karim du doon karaamam kon amul sikk bu ñu tuddee yàlla ba pare bu ñuy tàmbali di waxtaan dañuy ubbi alquran karim ana Mouhamed Niang na ñëw wàcce ay abiyaat yoo xam ne ci alquran ñu tàmbale ko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 Bye. Bye. allahu akbar ñu sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax lii rek mooy muxjizaat wala ñu ne mooy karaama Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ndax bàyyi lépp lu mu junj alquran la ak sunna yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jotaay bi ñaar ko waral ñaar rek a ko waral guñ gërëmee muqaddam Mawlana Cheikh Ibrahim ñas yi toog yu barke yi ñu ngi leen nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di sàkku ci mbooloo bi di ñaanal Baye moo duggee yàlla na yàlla guddal fanam te wéral ko ndax bis bu nekk dafa xam lu muy tollool wala bis bu nekk dafa xam lu muy nduróo ñaar nag moo waral jotaay bi mooy sëriñ ak taalibe ñaar moo tax ma ne ñaar rek a waral jotaay bi taalibe nag boo bëggee jot càkkutéefam ci péeb yàlla bi bàyyi jàngal nañu ko yàlla jox ko sa xol bi boo bëggee am yàlla boo bëggee alal joxeel alal balaa ñuy tàmbale jotaay bi ndax jotaay benn sëriñ a fi am ndax tey ajjuma la kenn bu waxee doyal na ñëpp labal na ci ñëpp muy kenn te yaakaar naa doole ma bañal loolu su ma yëkkatee kàddu gi jox ko Baye Modou Guèye mu waxtaan lu mu wax gërëm ngeen ndax kenn yéen a yéen moom mu yéen moom mooy yéen suñ ko joxee kàddu gi mu wax yaakaar naa labal na ci ñëpp ndax jotaay yàlla la jotaay yàlla nag ndab yi lu ñu bëri bëri bëri bu njëkk a suur rek suur nga ma ne na doon miss doon lu doon waaye boo lekkee benn ba suur rek suur nga kon dañ koy labal ci benn lab muy moom bu waxee rek lépp wat na gërëm nañu mboolem ku fi bàyyeekoo jotaayam ñëw fi la ñu sonal dinaa ci wax bu ma tàmbalee ci lii mooy nañ joxe haddiyee Maulana Cheikh Ibrahim Niass taalibe buggee joxe am alal da joxe alal dëkk bi dëgër na li koy toj nag mooy nañ génne xaddaay di joxe bëgg naa yàlla te du nangoo wér da salaatul fatiha nangoo defay yi tax nga yegg ci yàlla sa bëgg yàlla dina ma jaaxal moo tax sëñ Mahi Cissé dafa wax wax joo xam ne bu am solo ndax séeruloo ci taalibe bi bu nekk war na cee dox mu ne yow waliw nga lépp lu yàlla xaye yaa ngi ci doo def lu baax doo wax lu baax doo jublu ci lu baax lu dul yow lu la neex rek ngay jëf nga ne yow walliw nga waaye jàppale ne doo waliw waliw seytaane nga aarif nag dana dem ba maqaamam rikkeeku Baye Modou kontaan nañ ci yow moo dañu tuddee la Baye Modou Sané dañoo laajte addiere nga yëkkati ñaari junni jox ma ko billaahi wallaahi doo ko ñàkk nañ génnee addiye laa bëgg addiye bàyyi laa bëgg ñu génnee ko ala bàyyi mbay sumaare yow yëngatu ana moodu suukar ana moodu wal boo tuddul du ñëw bàyyi mbay lii la kay nekkati ko boo tuddul gars yi du ñëw man daal dëgg dëgg dëgg dëgg jaaxal na ma addee bayaanam bàyyi Modou gërëm nga alhamdulilah ñu ngi leen di nuyu nag kenn ku nekk sa tur ak sa sant Baye Moussa Baye Moussa yow nit ku baax nga Baye Moussa yow kuy jokkale nga te doo doggu mbokk Baye musaa mu kaddam yëpp war nañu roy ci yow xaal bi newoon ci yow démb ba tey moom ngay nekk am na boo yoo xam ne ñu ngi tarbiyee yàggul yaay seen sëriñ de waaye li ngay dund ci xaal bi ñoom dunduñu ko fay faydu nag attention dafa am danger bu ci ne baay bu waxee nañu xormal mboolem borom ndigal waaye borom ndigal yi nag am na ñoo xam ne ñoo leen jiitu ci ndigal ku bëgg a jot cër ci yàlla dangay nangu joxe cër tappale ci yàlla amul mbir mi du dof dof lu dof la du jeex jeexlu de jeex la yàlla boo koy dund ci yow muy doon dëgg ci yow wallahi doo wuruju mukk képp koo gis ne jàpp naa baay sama dund niil na doo ko dégg ba bufta bi di wal waaye jàpp-jàpp lu baay sa dund niil na mun na nekk waaye kenn du jàpp baay dundam di niil waaye ku jàpp-jàpp lu baay nag dundam mun na niil maxaama yi lañu rocci doon ay taalibe ndax am na sofiyanke boo xam ne buñ bëggee xegg ci yàlla dañ ko bombaloo moom ci biir duus loolu moo ko may jos xoolal maqaama boobu lañ la bëgg a jës bu yow taalibe bi mooy sa maqaama lu muy rëy rëy rëy wàccee ko si suuf te xam ne taalibe nga waaye doon taalibe ba pare yàlla nañ yàlla musal ci li ma bëgg a wax doon waliwu ba pare waaye doon waliwu seytaan te dafa bëri si sofiyanke yi bàyyi dudu yow nit ku baax nga bàyyi mudu kii ku la bëgg la musuma waxante baay Baye Baye Doudou mii mu wax ci yow loo xam ne ëllëg su ma gisante ak moom rus lu rafet rek lay wax ci yow keroog dégg nga ko ci daayira bi mu toxee nee na Dakar bu ñu amee tranga nañ sant Baye Modou Gueye ndax moom moo fi jiitu ku ñàkk ñaan du wax loolu mu ne moo fi jiitu moo doxal mbootu alu sumaani yu fii ba kenn ku nekk jot ko kon gàcce gàllaamu mu Modou Gueye Baye Modou bonul de Baye Doudou bonul de Baye daa bonul Baye Moussa bonul dafa am ñu sew sew yu nekk ci biir ñoo xam ne ay aboo dam-dam lañu ñoo ñu nag ñoo tasaare xadra boo gis ndax taalibe bu nekk gannaaw raaye xadra su juma jot nga jollos ci la jóge ba gannaaw raaye nag na ñëw fii de xadra juma bu ñu la waxee naa fekk bul mer bi du benn nañ mooy ci buum ak yàlla bi te bu ñu tàqlikoo mooy laa ilaha illallah waaye nga taxaw si seetu gisoo sa bopp nga ne seetu bu nekk fële laay gisee sama bopp sa xegg ci yàlla des na ñii ay benn lañu Baye Modou Baye Doudou Baye daa benn lañu ndax sëriñ bi bu waree wax ak ñoom ñoom lay waxal du wax ak ñun kon ñu bëggee mel ni comme sëriñ bi nañ déggante ak ñoom taalibe du utal sëriñam noonu fii liñ fi war a liggéey dafa yaatu xaam yi ñoo ëpp taalibe boo waxee dëgg ñu ne dafa xaal xaalu moo man li may wax dëgg la boo nekkee kuy wax ko dëgg ñu ne da ngaa naqari deret kon yonent yàlla Muhammad moo gën a naqari di ñëpp deret nañu dimbalante taalibe da ngay nangoo doon taalibe waaye taalibe boo xam ne da ngay jàppee sa bopp sëriñ jàppee sa bopp yonanti jàppee sëriñ bi lu tekkiwul dara doo mus a jot sa càkkuteef bi ci péeb yàlla bi taalibe am nañ ker sat nuyu sëriñ di sukk léegi bu ñu nuyu sukk dañuy wëngatu mel ni kanaare naan nii sëriñ bi am fooy nuyoo sa sëriñ sukk am fooy nuyoo sa sëriñ doo bakkan moo fa des boo waree rulle rullel boo waree pré préel ndax bakkan bu jeexee ceew ndax ku la xeggal ci yàlla lu do toll ni kiiraay kiiraay ku la ko dogal nga janoog pay boo xam ne mooy peel faddu la cër amu fa dara amu fa mooy laay laay la nga ñëwaat ci pay alamul naasut nga fay gis sa bopp war nañu xolaat ñu bëri seen taalibe seen ndëggu njëkk rëcc na leen waaye lan moo leen di dimbali mooy ñu delluwaat ci sëriñ bi waaye maa ngi sant yàlla bu baax mënat bu ma doon jot ba léegi wàccul moom daggul waaw ñu gërëm sëriñ bi bàyyi sumaan ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla taxawu ko gërëm nañ ko bu baax tey maqaama taali sët ak doom laa fi taxawee tey baay jaa ngi sët bi laay tooñ moo doon ma tudd maqaama boobu tey ñu ngi lay gërëm Baye Modou man sama mënat ak yow daggul xaal bi mu ma branché woon moom laa nandal ñu ngi fa ne moo tax bu fi ñëwee loolu la ñuy dund allah bàyyi du caaxaan allah bàyyi yàlla la boo ci nekkee nag ko dund boo sonnee dama toog ci biti boo indiwuñ fi ñaari taalibe bu ñu demee ba gisante di bañante nañ xoolaat seen diggante tax li jàppoon dëgg la taalibe baay bu njëkk bu ñu gisoon dañu doon kottante fóonante raayonte waaye nga gis sam morom di ko jaay maqaam di xulli say bët di aj garaaw di garaaw garaawlu am na ñoo xam ne sa dañuy créer léegi tey ngay jël tarbiya suba nga am manteau bu baax jet sa face ut sa mbaxane doon mu xaddam bu ñu la forcé wul sax nga forcé ko sa bopp di créer nag ay gént saxoo leen ragal buur yàlla kon seen xay bu leer. wallaahi dëgg la mu ne saxoo leen ragal buur yàlla ngir seen xay bu leer. am ngeen chef de quartier Kéba Sidi Bara. nga wax jooju dégg nga wax jooju moo taalibe nu ñu war a def. saxoo leen yàlla kon seen xay bu leer. wallaahi dëgg la. am ngeen chef de quartier Kéba Bara am. saxaar bu dee lonku ay vagom beneen gaara tax. góorgóorlu leen tew fa garba sidi bara amma wagon wu xomaat ba def salte du hem marchandise dañ koy xalaangal fa garba sidi bara amma booba wagon moo dem mac soobu soppeeku fa sex jëmmi mac soobu xol fa sex nani mar am li ma bëggoon wax yëpp Ibou Diouf way na ko ndekete mu ne wagon bu salte xam nga ne wagon bi du ko lonku bopp du ko lonku ndax lan ndax day mujjee soppaleeku fas yàq mu ne moto bu soppaleeku fas yàq laa ilaha illallah laa ilaha illallah yàlla nañ ci yàlla musal di nga gis koo xam ne mu ngi rëj rëj loo ci pay bi ndax ndekete dëggoom jeex na maqaamam bi jeex na bu yàgg voilà mu ngi rëj rëj loo ci pay bi di ndróog ak mot soob te du mot soob mën soob la mën soob mën soob xam nga mën soob koo xam ne soob rek lay def loolooy dëgg Ibou Diouf woy nañu ko nañ delluwaat ci Ibou Diouf mu delloo ñu sunu dëgg bu njëkk ba faydu du tapale faydu du créer faydu teg xel affaire du teg xel affaire yi dund yàlla la yàlla dëgg la yàlla du caaxaan yàlla du créer du affaire non naba maayen non nañ ko dund affaire amul ragal di garaaw garaaw lu nekk di woote ak wilaya boo xam ne nekkul ci yow wilaya teg xel la boo géntee gént bu tiit nga ragal dem uti ku la ñaanal sëriñ si léegi jàppe nañ wala taalibe jàppe nañ mbir mi mbiru oh te sëriñ la yaakaar ne dangay ngay mën a samp sa garab taxawal commencé seet di xulli say bët di garaaw garaawlu taalibe yu bëri léegi ñu ngi jaay ku jàpp wér de ci baay ba mu jox la ngëneelam ba mu jox la ci ngëneelam war def doo perte doo wala kaana bokkoo ci ñuy billahi wallahi doo perte doo wala te bokkoo ci ñuy réer mbugal mu foor ci biir bàmmeel ñu koy xalaat naan waaw waaw loolu rek doyoon nañu ta topp Baay Ñas xanaa dañoo yorul ngërëmal Sidi Baraham ma ne mbugal bu ba mbugal bu tar bu ñuy xalaat xanaa ñun amuñu ngërëmal rek Sidi Baraham tey taalibeem ñu lay sutural la ilaha illallah Seydi Baram tewe looloo jox bu doon jaay wér li lim ko dul jaay nag moo waral tappalekat yi bëri soppul ku soppu àddina soppul baraaya kita. wallaahi dëgg la. sib na sëriñ waa Baye sib sëriñ tariyaax léegi taalibe yi jàppee seen bopp ay sëriñ tariyaax sëriñ si. bàyyi sip na tëri sëriñu tariyaax waaye taalibe léegi sëriñ tariyaax la jàppee seen bopp naan dog bii wala wirdu bii wala xaatim bii boo ko yoree dina la may lii xaatim bii cey boo ko yoree koo bëgg a takk takk ko xaatim bii day not te yow yaa ngi nopp ay nit mënu leen takk yaa ngi am problème dépasse sa maqaama kun bi xanaa daf laa réer nga naan xaatim bi boo ko sangoo am bayre lii boo ko laalee am li xanaa te siiwoo da ñëw daayira ba génn fa kenn du la tudd non affaire yi dañoo war a waxante dëgg taalibe dañ doon taalibe heure wasifa na ñuy ñëw ci kër xadra sëriñ bi sëriñ sëriñ la taalibe taalibe la waaye doon taalibe ba pare di jaay maqaam ak sa sëriñ rus sax sa sëriñ dox di jiitu nga koy sikaral yaa ngi tolloog moom mbagg di garaaw garaawlu li may wax li nag bàyyiwuma sama bopp de ñëpp laay waxal maa ngi jiital sama bopp ku jàpp la yow laay waxal laay waxal ku jàpp ne sikki sàkk naan bàyyi man lay waxal wala waxul ak man yow sa bopp laay waxal dañ góorgóorlu nammaat suñu fas yi ñuy waroon mooy lan mooy salaatul fatiha nañu wird taalibe day wird taalibe du caaxaan bëgg naa yàlla bëgg yonent bi jaay maqaama jaay xaal te doo wird doo laazim doo jàng alxuraan doo naafila doo def dara yow yaay kan yow yaay kan xalaatal sa bopp ku xam yàlla ragal yàlla waaye nga xam ko ba pare ñeme ko xamagoo ko ndax boo xoolee ni yàlla di tajilee maqaama bi ci biir melo yi nga gis doom wala baay wala doom yoraat baay ñu kastare maqaama xëj sa colonne vertébrale wàccee ko ba suuf saxal ko tëj say wee guddal sa gémmiñ laa ilaha illallah boo xamee dëgg dëgg nga am yaqiin nii la yàlla di so soppee alam bi wallahi da nga ragal yàlla ñu la dóoru di nga yaakaar ne nday jooy ngay jooy jooyu xool sa bët di génn lu mu diis diis ñu ab la ko moo tax ñu ne ku bañ bàyyi dañ la rey dala peese ay kilo yow mii Modou Sow bi di ko way ba pare te gëmoo ko laa ilaaha illallaah bu ñu nax suñu bopp te bu ñu wurut suñu bopp am na ñoo xam ne wird ak ñàkk a wird yëpp moo yem ci ñoom waaye est-ce que ca nga bokk yow ca nga bokk yow am na ñoo xam wird ak ñàkk a wird yëpp ñoo yem ci ñoom waaye est-ce que ca nga bokk ba ngay bañ a wirdu ku la wax yow ca nga bokk ku la ko sëriñ dañ koy bëgg nit nag boo ko bëggee dangay ànd ak moom waaye léegi sëriñ su bëri sànku nañu xam ku leen sànk seen taalibe ñooy ñëw naan ko sëriñ bi kay ni ma la gisee laa ilaha laa maqaama bi nga yor laa ilaha illallah sëriñ bi nag bu gàttee xel moom tamit yokk toog ci maqaama boobu moom tamit naan waaw wax nga dëgg de xam kañ lay xam ne waxoo dëgg yow sëriñ bi bu la ñëpp di linkar di la weddi di la dénga taalibe bi ko dégg bu yàggee mooy dem bàyyi la dem jokk feneen naan sëriñ bi dafa mun fen waaye ku la bëggal rongal maqaama te doowoo bañ ko Baye Modou ngi lay gërëm maa ngi sant yàlla bu baax boo amoon boo amul woon xaal man ma am xaal bi tey nag ta taalibi moo ñëw ziyaare sëriñam buntu ziyaara la bi waroon a gën a yaatu ndax damaa ñëpp yëg damaa xam ne su ma ko deful fii pour ñu defaat ko day xaw a jafe waaye lii ñëw seet si la bëgg naa yow nga ñëw seet si waa jaxaay bu yii weesoo nga ñëw def daayira boo xam ne nit lu mu musul gis naa ko def man nekkuma ci ay tappale de man ci dëgg laa nekk bàyyi laa nekk birit bi laay dund nekkuma ci yoo créé bi gaa yi ni ñuy créé mooy soo biis faydu bi man newuma ci loolu man dëgg laay dund bàyyi man newuma ci soo biis bi de <laughs> man xaqulaay dund affaire yi dëgg la amul laam-laamee bu jaree mattante mattante bu jaree laarante laadante bu jaree raayante raayante fay du loolu la waxal dëgg donte dañ la dëgg bu wàccee sa bakkan nangu ko te yàlla rek a waaye nga xam yàlla ba pare naan noo di ragal ak yeneen looy ragal affaire nekk ci rek boo ci nekkee yàlla dimbal la li ma wax nag kum kum tuuse yow laay waxal ci am loo yëg-yëg di yow laay waxal bàyyi duudu gannaaw raay taalibe bàyyi Ousmane yu fa nekk yaay seen jiit bayda gana faas mbaaw taalibe Baye Soxna yu fa nekk yëpp mooy seen njiit jaxaay kazalika géejuwaay bii mboolem ku fi ne Baye Modou mooy seen njiit boo ko nangoo ak boo ko nangu loolu la amul sikki sàkk loolu la fal la Baye Soumane buy ñëw ginnaaw raa yow lay setsi buy ñëw faas mbaaw Baye daa lay setsi bu waree ñëw fii kii mooy sëriñ bi buñ tajee te ñun ñëpp nag Baye Modou mooy xalifa bi mooy xalifa Dakar loolu amul amul laam-laame kum neex loolu la kum naqari ñu ngi ziar nag Baye Ousseynou Kayta ñu koy ziar bu baax ndax yaay booy mu ngi nii kii soxna Baye Ousseynou Kayta la ku jeex ci yàlla ku bëgg yàlla musuma ñëw daayira fii te duma ko gis ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla na yàlla taxaw la yàlla na yàlla dimbali la doomam taawam Baye Ousmane ma la ko jox mooy Kayta yàlla yàlla dëgëral ko yàlla na yàlla sàmm la yaay kii nag mooy sunu yaay lii mënul woon ñàkk ci faydu yaay yaa baax taalibe Baye Malle Thiam borom ijaasa xàmmee feeñuwaay yàlla yi moo waral bu mu amee doomam amee lijaasa mu jël lijaasam ak lijaasa doomam jox yaay yaa baax ñu ngi lay ñaanal yàlla na yàlla guddal sa fan wéral la ba ci kanam kanam ñu ngi lay gërëm bu baax ñu ngi jéggalu bu baax nag bu dee dañoo amul wax ñoo xam ne dafa rëcc rëcc ñu ngi leen di jéggalu di leen baalu àq yàlla na yàlla mottali man moom xam naa ku ma bëgg a raw ci alal gisaguma ko fi ndax man lu ma mën a joxe dama yore benn joxe ko toog waaye yow da yore ñaar xaaj benn bi xaajaat ko doog a joxe fi xaar xaaj xaaj bi sëriñ bi bu dee gërëm nga alhamdulilahi rabbil alamin nag ñu nangul suñu rëcc rëcc ni lañ mel ñun yàlla nag bu bindee nit nu ko neex lay bindee man mii di wax ak yow yàlla bu ma dugaloon safara baax na bu ma dugaloon àjjana baax na su ma yoon newul fu may dugal sama yoon newul ci yàlla bind jaam muy man bindaat beneen jaam muy safara bindaat beneen jaam muy àjjana def ma ci diggante bi su ma yoon newul ci moom lu muy dugal man dama war a def li ma war a def maa nga ca li ma war a def rek laa ne leneen nag li yàlla di tëbbu jaam man sama yoon newu ci ah. ay rikkee ay riigoog ay yooyu yooyu man newuma ci man fu ma newoon maa ngi fa man ndax li ma newoon yàlla mu ngi ci doon dimbali yàlla dolli ma bi ma nekkee taalibe Mawlana Cheikh Ibrahima sama dëggu boobu nag dara du ko dindi ni ma sukkee woon sa kanam démb mooy kër gële taxaw ne la bëgg naa baax juguma ci loolu ba tey maa ngi ci loolu keneen nag bu interprété ne neen moom la concerné bàyyi moodu bis bu ma taxawee sa biir néeg boobu nga toog ci kaw lal ma toog ci suuma ma ne la baax rek laa bëgg ma ànd ak Pape Fall ba tey maqaama boobu rek laa tegu teggeeku ma ci nit ñi nag dañoo bëri ay fanatique ñoo xam ne bëgguñu doom ak baay yu ànd man dama laa bëgg man bëggoon duuma leen ay nii nee man dama la bëgg mbëggeel bu mu la bëgg moo waral du nangu yenn yi yal na yàlla taxaw la bu dee am naa tuuti cër wala am naa tuuti ñaan buy nangu yal na yàlla taxaw la yal na yàlla sàmm la ci barke yonent yàlla Muhammad bu dee gërëm nga alhamdulilah man sa xol sedd rek laa bëgg sa laa bëgg yal na yàlla taxaw la lii taalibe maqaam amu fi man taalibe laa man awma lu mu lay jaay man ta taalibe laa alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Baye Niass ñu ngi la jox addi ñu wax jërëjëf Baye su ngeen kontaane wax leen jërëjëf Baye Niass waxaat leen jërëjëfe Baay Ñas wax leen jërëjëfe Baay Usmaan su ngeen bëggee rek wax leen jërëjëfe Baay Usmaan ñu waxaat jërëjëfe Baay alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di sant Mawlana Cheikh Ibrahim di ziyaara muqaddam yi teew fi ñëpp min alif ilaa yaa su tuddee Baye Cheikh tudd naa Baye Doudou tudd naa Baye Moussa tudd naa Baye Ngom Baye am ñu ngi gërëm sunu xol sedd na ñu ngi nuyu suñu yaay mi nga xam ne lu jiin njaag mooy njaag ndax feccum su neexee rek nday jaay jàpp ci mbag yi yëngal bay am changé woo danga yokk bu doon dof la da ngaa gën a dof su doon maqaama la da ngaa gën a kawe su doon yëkkatiku la da gën a yëkkatiku li daloon bukki ca sabar ji amoon kaw asamaan yow dalut la ndax bukki bi mu bëggee yéeg jargoñ moo ko yéegal bi mu demee ba ci kaw asamaan ba sabar ji tas dañ na ko bukki ku la indi mu xool ni jargoñ tuute mu ne ñay keroog ba ñibbi amee moom ñibbiwul dëggu gi amoon ci yow démb moo nekk ci yow ba tey soo ma bëggee benn bëgg naa la fukk ndax al mutasilu mutasilu yow dama lay sante yàlla ak mboolem say rakk yu nekk sa ginnaaw dama daan toog di imaginer fu ne lu ne imagine naa ko mos naa dem ba ci bâche ma ne dama bëgg nga may ma secret boo xam ne mën naa sàcc oto indi ko fii jox la ko te dara du xew ma doon ñaan yàlla riyaadu mu mësu dugg jamono jooju li may ñaan mooy oto bi Baye Ousmane bi ñuy njëkk a jox Baye Ousmane addiya su ma ko joxut yàlla na ko ki ànd man jox ko Baye Ousmane ñaar oto lay dawal lépp ñun ñoo ko jox kon xam nga li ma bëgg comprendre nga ma xam ne soo ma jokkalee sama waa ji rek jokkale nga ma lépp lu ma bëgg man Baye rek laa bëgg ndax ni ma mel moo ma ko def fi ma àgg moo fa yóbbu li ma xam moo ma ko xamal ku ma xamoon démb nga xam ma tey nga xam ne am na lu ñu def ci man lu am doole Baye Moussa mii seede la ci Baye Daouda Diallo seede la ci bis bi ñu njëkkee gis ak Baye Ousmane dafa ma laaj sama yaay laaj ma sama papa sëriñ bi moom nu xam ne sama baay ak sama yaay ak dund dama boobu fañ nekkoon la noo sens rek waaye gis nga ndekete yoo fi ñu war a jege foofu la man laayal sama yaay xam Mouhamed Nazir laa man moo may tarbiya 97 mu gaañ ma man ñàkk naa sëriñ ba 2002 la ma bàyyi daa jàpp yóbbu ma ci Baasman Baasman bi ma ko njëkkee gis atelier la ñëw boobu patron bi bu ñu waxaan Baasman rek day wax ay wax yu garaaw ci Baasman Baasman ne cër ci atelier atelier bi gaara benn oto mbalit wàcc rek patron bi daa daw wiiri wiiri ko dem dugg ci beneen place mais leen kii mooy Baasman ñu ne ma waaw ma koy xool di ko xool di ko xool ba mu dem bi ma ko gisaatee mooy keroog ma jàkkaarloo moom jaayante ak moom Baye Amadou sama xol sedd na ci yow. lépp loo def neex na ma ndax ma ci lem nag ak fototu ñoo ànd boo fàttalikoo jaxaay bañ doon wax jaxaay na jax ki koy jaxal mooy barxaamu jaxaay jax na de ah ban année lañ ko doon woy maa ko créé jaxaay na jax ki koy jaxal mooy barxaamu xam naa sa dëggu xam naa sa jàmbaar xam naa ne ku ñeme dëgg nga xam naa ne ku bëgg dëgg nga ku bañ ay fen nga ku liggéeyee si sëriñ bis dina ñëw yàlla dana la omatal ñu lay liggéeyal Papa Ndiaye mu ngi koy fàttali barki démb tey bëggoon na ñëw waaye jagadi yaram a tax mu ne bu ñu daan nga ci foos bi ci biir kër gi soo waaye day cëb rek ne curup dugg ci biir ñu ne ko bul dugg wóorul mais day dugg defal ko ba mu seet am na tey ñu koy defal dangeen koy fay la mu defaloon sëriñam jërëjëf sama xool sedd na ngan googu nga wax danaa ñëw jaxaay danaa ñëw te sama gaa yi xam nañ ñoom amet mun nañ tànn seen bis ñu ne bàyyi maam bis bii lañ bëgg nga ñëw maam ci faydu su ma ko déggee jaxaay laa ko déggee kon bàyyi am sa liggéey rafet na li nga wax fii yëpp dëgg la bàyyi mu ne mat jóob lam yasluk ilaa xaali ina mu ne mat bi perte na ginnaaw bi mu fetteerloo yaakaar ne moom hegg na ci day yàlla ba fekk agut fenn mat jóob bi dañ laa wax ne loo muñ muñ gaawal nga soo boot te xam te ràññe doxaat li tax ñu wax la loolu dañ laa bëgg a dimbale xam te ràññe li ngay doxaat mooy nga xam fan ngay teg sa tànk ak naka ngay doxale taalibe bàyyi dëgg dëgg dëgg wala taalibe dëgg doo naafeq doo seytaane doo dem fekk ay nit yu jaxasoo nga di leen di jaxase xamuma ko ci yow yow it xamuma ko ci man man ku daw ñëw ci man damay mucc waaye duma la wax lu safaan ci lu mu doon nag kontaan naa yaakaar naa ne baas baas man kontaan na ndax gëm naa ne fii ma toog ci yëg-yëg moom xolam sedd na ndax jëf ci rafet yi nga jëf yàlla na sax yàlla na barkeel liggéey bii ngay liggéey jëmale ko ci liggéeyal sunu tool yu yaatu yi yàlla na la Baye Ousmane jox la lu raw sa njort te dana la fay Baye Amadou barke Baye ku def lu baax am lu baax ku def lu safaan am lu safaan man keroog fii sama anniversaire bi ma toogee ba séen la ngay wàcc oto yéeg naa sama xol bi lu rëy loo xam ne mënuma ko nettali doomu aadama kon ci man nga bokk bët boobu laa lay xoolee ba tey bi nga taxawee sama kanam ne da bëgg a baax xare naa ba nga baax de bay baaxalaate keroog ma Cheikh ooyee ne ma baay damay def conférence dimanche ma ne ko conférence mu ne ma daara ji ma yore. laay def conférence commencé ma expliquer daara ji lan moo tax mu sabab lan moo tax mu def ko yaa ma roy ñu lay roy soo ñu royutoon duñ la roy te muy roy ci yow mbaax goo xam ne du fay ba ilaa mi diin mu jël ay xale jël këram tabax ci kaw jël ay xale yoo xam ne kenn du fay mu leen di jàngal alxuraan démb déglu naa interview bi gis naa ko li ma ko seetaanee wóor na yàlla sama ronkoñ sa génn na ndax lu baax lu baax doo nga koy fay te incha allah danañ ci ñëw danañ ci teew danañ ci ànd ak yow ba mu jeex di la war ne lu ngeen nekk lu nekk rek ñun ñu ngi ci ak yéen yal na yàlla fayante leen ci lu baax yal yàlla jàppale leen jéego bu waaye jéego ñëw fii ci teraanga bi nga xam ne moom la bàyyi am lu ñëw defal ni yal yàlla fuulandi ko yal na yàlla jàppandal ko yal yàlla taxawu leen yàlla bu leen yàqu te yàlla bu leen yàqule yàlla bu leen yàqu yàlla bu leen yàqule yàlla ngeen ànd ak ngeen mànde yàlla ba ilaa yom yu baasuwoon Baye Amadou sama xol sedd na guy te yaakaar naa ne président bu saanu ànd fi na tamit xolam sedd yaa ngi ñëw muy gàmmu géejawaay gàmmu géejawaay te ñëw ma wax gàmmu géejawaay ndax dakaar la gàmmu dakaar fii lañ koy defee lépp lu ngeen ci mën na ngeen ñëw ngeen def ko ndax gàmmu gi mooy lancement gàmmu jaxaay bi parce que ñu ñooy njëkk def gàmmu gi mooy lancement gàmmu jaxaay bi kon bëgg naa yéen ñëpp ngeen def ci lépp lu ngeen man ngeen def ko ci doole lu mu munti doon ñëw leen ñu xam ne bis boobu événement am na fi kontaan naa ci yéen ñëpp di ñaan ñëpp yàlla dafa leen jàmm kuy ñibbi yàlla na ñibbi ci jàmm yàlla bu am benn gàllankoor képp ku am feebar ñëw fi yàlla na ko yàlla faj képp ku fi am jafe-jafe ñëw fi yàlla na ko yàlla faj képp ku fi am aajo ñëw fi yal na ko yàlla faj képp ku fi bëgg dara ñëw fi yàlla na bëggeel googu yàlla saxal ko ba lépp loo ci yéene rek yàlla defal la ko ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim ci barke Baye ci barke Baye ci barke Thierno Alassane ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim kon wa axiru daxwaana alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad alihi حق قدره ومقدار عظيم بعدد صوف الملائكة وتسبيحهم وتسيهم وتحميدهم وتمجيهم وتخبيرهم وتخليلهم من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة صلاة تملأ الهازل والأبد زمانا مكانا مضروبة في كل أدل ما في علمك يا الله يا واحد يا أحد وتحولنا بها بمهد الفتل والمن والوداد ملء التاب والمفات أفرا بسم الله اللهم إني أسألك باسمك الذي أودعت فيه رموز الحقائق وفرت به كنوز الحقائق وهجريت بأرى سره على الملك والملكوت واسكيتا فايده أنواع خيار الجبروت وفرت به رزق المخلوقات وفرت به أرزق المرسوخين باسمك الذي انفرت في مواكبها اسمك الذي أطلعت به لازمة أنصار سلمة على سيدنا محمد الفاتح خاتم ناصر الدين وعلى آله وصحبه وأن تنصر نورها في لمنا ودمنا يا زجر الكلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام وسلام وسلام وسلام وسلام wasalaamu ala mursalina walhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Ba Isma abonnez si notre chaîne Dahiratoul Fadly Dahiratoul Fadly kuñ fornome war ngay sant yàlla ñun lañ ci jël kese la dem si di